ma femme Ndoumbe yow da nga yàgg marché. nijaay daal tey marché coow lu métti moo fa coow. marché daal benn waay lay fa jàpp muy yalwaan ndekete daal nijaay waa jooju ay kër ak ay magasin la am dëkk ba. kër ak magasin. waaw te lépp nag ci yalwaan bi nga la ko amee. mais Ndoumbe kon kooku c'est un faux yalwaan kat mais xaali kii baadoo na de. laaj suñu xëy. yalwaan na xaalis de. xaaral ma egg si biir man saa sama añ bi gën a nga gis lu xëy ma dimbal xaali mon ami sëggal ma day la. nga gis lu xëy nangu na na tàq kon jógal ñu dem xaali. te xaali gis nga bële dafa gumba. chaque jour mu romb ko fële boolam day fes dal ak xaalis ay 10 ay 5 000 rek sarax. nandeen dafa ndàkk xaalis wàccal sa loxo looy def nii bul joxoñ taxawal fii nga couvrir ma ma dem lëfal ko. ana yàlla. am yàlla jox la. xali ci kena coow tibuna lo xaalis kaa ñu dem jënd ginar tay ginar la ñuy reeree eh e dem ma dem tay seton tour gis nga kat bele mom ngay dem tibb lo xaalis la gis la ki gumbul de am naa ni gumbawul mais ay bekk la yor xaali mënul daw ana say tànk xaali xanaa mënoo fiddi mënoo daw waaye demal waaye ngay ñàngal ak sa bopp bu gàtt xaali looy daw doxal ci lafañ la mënul daw hé है खाली डबल कूर कूर చిల్లకొని ఉండే waa koñ bi génn leen lafañ baa ngi daxa ji xaali noppil tëjal sa làmmeñ jaar mbedd mayga bi Ali rëcc nañu de mais wóorul business bi dafa bëri risque de xaaral j'ai une idée am naa beneen idée hey. laay gees man kon yaa doon lafañ lafañu fee di yalwaan. hey taxaw leen tey rek ma. xaali yi kuur ñamal say tànk de bu la jàppee rek nga dee bu la gisul